jërëjëf jërëjëf di rafetlu seen engagement bu ñu nekkee ci weeru koor ñu ñëw fii ci wax ci dox ñu gis toutes ces femmes tous ces jeunes yaakaar dafay doon la ñu waral que vous êtes engagés vous êtes déterminés pour assurer victoire au premier tour. Madame la présidente Aminata Mbengue ma soeur maa ngi lay nuyu bu baax di la xam di gis sa engagement ci président Macky Sall ak képp ku ma tàggatoo jëlee di wut sa responsable di wut gis ne ba tey jii ki nga teewoon yaa ngi foofu amin Aminata modèle la ci jigéenu Sénégal yi engagement politique bu ànd ak fulla fayda bu ànd ak détermination merci aussi pour tout ce que vous faites pour nous parce que yàlla dogal na aussi ñu def marak ndax suñu diggante ëpp na fanweeri at mais mais mais ko mais xaroy ndax lu baax rek ngay xam lu baax rek ngay dox lu baax rek ngay def jërëjëf maa sëriñ Aminata Monsieur le président du conseil départemental mon ami et frère Mery Sylla à travers toi maa ngi nuyu l'ensemble des élus du Dëkk Lor ci mairie économiques et sociaux de premier ordre maa ngi di sant bu baax a baax a baax a baax xam naa ni dina na waa seen mi ñu ñuy kàllkàlle rek ndax waxtu yu waroon ñu je pense que vous comprendrez te fonk naa leen bëgg naa leen xam naa ni xam naa ni xam naa ni yéen a ma gën a téye yéen a ma gën a fonk yéen a ma gën a bëgg dinañu waxtaan léegi fexe ba liggéey bi ngeen mën a def mais je suis très touché par votre présence. très touché par votre engagement kenn mënu def lenn benn localité bu àndul ak yéen parce que vous avez déjà la confiance ñi nga fonkee président Macky Sall ak ñu ko téye maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax dama leen bëgg a félicité ba ci nga xam ni loo def sa bopp nga ko defal ndax yàlla dafa doon suñu diggante yàgg. waxal ca kaw waay. merci pour tout ce que vous faites. waxal waay waxal. suñu barkeel suñu suñu barkeel bépp ñaan la suñu way ju Thierno Bachir mi ngi fi ma koy nuyu di ko sant di nuyu doomam sama rakk muy